scénario ñu ngi koy njott bu amoon euh, jour installation quatorzième législature bi parce que ñu ngi lam-lamee gendarmerie day dugg wala du dugg certainement euh, bu blocage bi continuer le président de la de de l'Assemblée nationale dina leen réquisitionner Kir ñu ñëw rétablir l'ordre ici donc c'était ça la précision en ay euh, précision yi nga xamante ni euh, précision yu am solo la ndax euh, vote sans débat bi nga xamante ni moom Mamadou Lamine Thiam yëkkati na ko fi ci assemblée loolu nag moom moo daal di indi coow li donc c'était juste un rappel par rapport ak lie yee bi nga xamante ni wala lii débat bi nga xamante ni am na fi fii si assemblée nationale te ñuy xaarandi. yéen a ngi dégg noonu Guy mari Sagna mu ngi mu ngi yëkkati ay kàddu ñu déglu li muy wax rek. moom Guy Marius Sagna daanaka euh, li nga xamante ni moom mooy euh, travailleurs yi nga xamante ni ñoom tamit euh, jàpp na ne ñoom it ñu ngi jànkonteel ay jafe-jafe mu ngi leen di jëlal part di. wax ne depuis euh, vingt ans euh, trente ans jàpp dix ans même am na si ay travailleurs yi nga xamante ni ñu ngi euh, jànkonteel ay jafe-jafe te assemblée bi ñoom ñoo waroon jël seen matukaay pour représenter dignement le peuple sénégalais. yéen a ngi dégg noonu kàddu Guy Marius Sagna moom ba tey mu ngi taxaw si euh, pépinière bi nga xamante ni euh, foofu nag euh, la député di taxaw pour jël kàddu moom ak honorable Ramatoulaye Bodian ak beneen député bi donc kii di Samba Dang tamit taxaw si ginnaawam ak l'honorable Massata Samb donc Mamadou Niang tamit moo ngi noonu taxaw si wet ga ba tey rek ñuy xaar yëf yi euh, fan la rek daal di euh, fas yéene mujjee ndax mu nekk ay mbir yoo xamante ni euh, booba léegi rek ñu ngi doon xaar ngir ñu woote bi la loi fii si assemblée nationale waaye nag vote sans débat bi nag nga xamante ni moom Lamine Thiam ñu fàttali ni moom lamin Thiam si boppam moom moo moom moo daal di dugal li nga xamante ni moom mooy donc bi de proposition de loi fii si assemblée nationale. ginnaaw nag ba ñu waxee daal faaw ñu ubbi ab commission d'enquête parlementaire euh, commission parlementaire boo xamante ni euh, dafay rek daal di leeral si ni ñu seppee Karim de si euh, élection yi donc gis ngeen Thierno Alassane Sall moom tamit moom moo dugaloon recours bi sa conseil constitutionnel mu ngi noonu moom tamit am na lu muy wax moom Thierno Alassane Sall nee nañu du ñu wote wala Thierno Alassane Sall nee na duñu du ñu wote li nga xam te rek moom mooy loi bi en tout cas nekk na situation boo xamante ni euh, compliqué na lool fii si assemblée nationale euh, vingt heures cinquante trois minutes et depuis euh, onze heures la ñu convoqué woon ñoom député yi ndiki tey jii si séance plénière ba waxtu yi ñuy wax ak yéen loi bi jotaguñ ko voté ndax vote sans débat bi nga xamante ni ñu ngi ko doon proposé te kenn waralu ko lu dul kii di Lamine Thiam bu wàllu Euh, bi mu bi mu rek daal di tegee li nga xam rek moom mooy boobu la situation ñoom nag euh, taxaw nañ temm rek. ne duñ ko wote gis ngeen euh, Guy Marius Sagna moom ba léegi rek euh, mu ngi mu ngay wax li ko métti mu ngay kaas ba léegi ak euh, écharpe Sénégal bi nga xamante ni daal nay koy lonko donc si alors si wet gi noonu mu daal di jàll verte zone rouge di représenté député comme niñ ko doon ni mu ko rek daal ni koy fas yéene daal di defee warawatina nag si installation quatorzième législature bi gannaaw nag ñoom tamit bañ mu daal di leen euh, gantale euh, li nga xam rek moom mooy ngir ñu amal seen wat bi euh, si jamono jooju ñoom tamit dañ koo mujjoon def dañ koo voté woon si teewaayu li di ay gendarme voilà ñoom ñoom tamit cette fois si li jëm si loi bi nag ñoom li wax mooy loi bi bu ñu ko voté du baax si réew mi ndax jàpp nañ ne yëf yi kat c'est anticonstitutionnel Euh, li si rax dafa bëri am na si ay ndëkk sërëx yoo xamante ni euh, sénégalais yi war nañ ko mën a bàyyi xel euh, ñoom député yi ñoom ñoo ko xamle député yu yeewe ak wàllu rawatina nag kii di Cheikh Abdou Bara Dolly sax moom ba mu yëkkatee kàddu moom nee na du voté ab luwaa boo xamante ni bu fekkee ne dañuy yokk li nga xamante rek moom mooy diiru njiiti réew mi Macky Sall ngir mu mën a toog fii si réew mi tey député yi ñoom ñu ngi euh, taxaw rek di xaar euh, Guy Marius moom nee na nous exigeons la démission du président Macky Sall yéen ngi dégg noonu nee na Macky démissionne ngi dégg noonu ba tey Guy Marius waaw euh, Guy Marius Sagna mu ngi wax ni euh, na Macky Sall démissionné yéen a ngi dégg Farba Farba Senghor Farba Senghor nee na Thierno Alassane Sall voilà Farba voilà Farba Ngom voilà maa ngi jégalu Farba Farba Ngom ah Farba Ngom euh, mooy xamal que ni <laughs> Thierno Alassane Sall nee na ko maa ngi nii toog mu ngi noonu waneel ma noonu Farba Farba Farba Ngom Ngom euh, jug na taxaw voilà jug na taxaw mu ngi wax ak Thierno Alassane Sall Thierno Alassane Sall tamit Thierno Alassane Sall mu ngi noonu génn Barthélémy Diaz mu koy calmé nee na bul ko tontu bul génn euh, Barthélémy Diaz mu ngi calmé euh, Thierno Alassane Sall gannaaw ba ko Farba Ngom euh, mel ni li koy tikku nag daal di jub ne ko xam nga ma de maa ngi nii donc <laughs> xam nga rek ci assemblée moom yenn saa yi député dañuy dañuy tooñante seen biir mënul ñàkk fii si assemblée bi mais Thierno Alassane Sall demoon na bay génn waaye kii di Barthélémy Diaz moo ko calmé. Eh, moo ko calmé finalement Thierno Alassane Sall jotul dem tontu ko eh, toog na fi mu toogoon rek donc mu nekk ay mbir yoo xamante ni yéen ko eh, ngeen di ko gis donc gis ngeen Abass Fall mu ngi concerté ak Massata Samb ànd ak Guy Marius Sagna Mamadou Niang honorable Samba Dang am na lu ñuy waxante seen biir noonu ñu taxaw ba tey ci kanam jugeeguñ foofu ndax ñu ngi xaar lan mooy nekk suite bi par rapport ak. Euh, lan moo nekk dogalu euh, njiitalu assemblée nationale ndax dafa fas yéene indi euh, lii di gendarme yi pour ñu amal vote bi loolu nag ñu ngi koy xaarandi waaye ñoom député ya ba ñu ngi taxaw rek di waxtaan seen seen biir comme ni ngeen ko gisee comme ni ngeen ko gisee noonu donc Farba Ngom mu ngi mu ngi Farba ba tey di di wax rek moom di voilà ne nii nag bataille psychologique la parce que. bataille psychologique la parce que euh, bataille ñaari camp yi kenn ku ci nekk rek yaa ngi euh, yëkkati kàddu jëmale koo si sa moromu euh, collègue comme ni ko Farba Ngom defee daal di koy jëmale ci Thierno Alassane Sall gis ngeen noonu bu baax. waaw fi mu ne nii am na si ay député yoo xamante ni ñu ngi euh, ñu ngi génn si si biti mel ni li wuy ji mais ak lu si mënti am ak euh, lu si mënti am euh, jàpp leen jamono ji situation bi mu ngay doy waar fii si assemblée nationale ba si tey ji si altine ji juróomi fan si weeru février si atum 2024 yéen a ngi ànd ak ñun en euh, daanaka vingt une heure zéro minute euh, moom moo daal di euh, jot fii si assemblée nationale député yu yeewi askan wi yeewi askan wi moom ñu ngi taxaw rek ànd ak ñii di waa PUR tamit ba tey Guy Marius Sagna moom fi mu taxaw jugewu fa voilà bougé wu fa mu ngi am na li muy discuté ba tey. ak euh, yeneen collègue euh, député yeneen député benn yi moom euh, ñenn ñi ñu ngi toog seen place rek bougé wuñ defuñ benn réaction toog di déglu rek ñoom tamit jàpp seen ñàmbur xaar ba xam ndax moom président Amadou Mame Diop bu ñëwee lan la fas yéene jël comme décision ndax danañ fas yéene daal di dal di suspendre séance bi ndax dinañ ko yóbbu ba ëllëg ndax dinañ ko wote loolu yëpp incha allah dina. dina leer euh, si kanam tuuti euh, fii si euh, diwaanu assemblée nationale gannaaw <clears throat> ab loi bi nga xamante ni war nañ ko war nañ ko wotee loolu nag waa wàllu ñoom ñoo ko dugaloon ndax ñoom lu ñu bëgg rek lenn kese la mooy ñu daal di amal élection yoo xamante ni Karim Meïssa Wade da siy bokk laata loolu tamit ñu dàq élection yi si diiru juróom benn weer ndaxte jàpp na ne daal euh, faaw ñu dàq ko si diiru 6 mois te bu ñu ko dàqee tamit euh, si diiru euh, juróom weer dina mën a permettre ngir ñu daal di koy amal <clears throat> juróom weer yooyu nag bu ko xaymaa moom mooy le 25 août bi di ñëwaat. te lii di waa yeewee askan wi moom d'accord ñu ci benn yoon ndaxte jàpp nañ ne dafay dafay fekk mu dal di laal li nga xam ne mooy màggal Touba bi nga xamante ni war na rek daal di tàmbaliwaat waaye tamit